lelaw mooy safaanu waa àjjana waa àjjana moom luy gën a yàgg àjjana gën a rafet gën a taaru wa fil xabar yi nekk na ci xabar xani nabi jële ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne lamma xalaqa ba sàkkee allahu yàlla almawta dee xajabahu yiir na ko xanil xalaayiq yi walis mbindee bi alfi alfi xijaabin ci junni junni kiiraay wa azamatuhu te ak màggam moom de avriyaayam akbaru ci asamaan yi wal ak suuf waxaddu shudda te takkeef na minal mawti ci dee bi sabihi la ci junni càll la kullu silsilatin bépp càlla la tooluha ab guddaayam masiratu alfi xaamin doxub junni at la laa taqrabuhu du ko jege almalaaykatu malaaka ya wala yaalamoona te duñu xam makaanahoo bérébam ba illa annahum dara naka ñoom yasmaawoona danañu dégg sawtaxoo kàddoom fi kulli ci bépp bis waqtin ak wépp waxtu wa saaxatin ak sépp saax day bëgg dugg nag ci waxtaane mbirum jëmmi dee ci boppam ak na mu toll mu ne jële nañ ci ngeen ji mindéef mu ne ba yàlla sàkkee dee dafa jël junni junni kiiraay làqe ko ko ba mindéef yi duñ ko séen te dee moo gën a rëy asamaan ak suuf boo leen boole woon li ñuy rëy rëy dee moo leen di gën a rëy yàlla fab nag juróom-ñaar fukki junni càll la yeewee ko dee te benn càll la bu ca nekk rek guddi na na doxub junni at ba yàlla door sàkk dee noonu la ko defoon nga xam ne làq gam ko làq ci kiiraay yooyee tax na malaaka yi duñu ko jege duñu xam fu mu nekk waaye teewut nag ñuy dégg kàddoom saa yu ñuy dégg rek kàddoom kon yàlla sàkk na dee mu réye noonu ñànge noonu mu yeewe ko càll yu bari yooyu waaye nag malaaka yi dañuy dégg rek kàddug dee waaye xamuñu woon fu mu nekk xaala alayhi salaam falam maa xalaxa ba bindee allahu yàlla taxalaa kawe na aadama aadama fa sallata te mu xiirtal xalihi ci moom malakal mawti malaakam dee xaala wax na almalaku malaaka ma ne ko yaa rabbi yow sama boroom woomal mawtu ana luy fa amara te digal allahu yàlla alxujuba kiraaya alxujuba bin kishaafin ci ak muriku fan kashafat te ñu muriku warta faxat ñu yëkkatiku xattaara aahu ba gis ko moom dee almalaayikatu malaaka ya kulluhum képp ci ñoom ajmaxoona mboole seen gannaaw bi yàlla sàkkee aadama nag daa daldi woo dafa daldi woo am malaaka ne ko deemeekat yow laa ko féetale yaa ko yore malaaka ma moo tudd Asraayil malaaka ma ne ko waaw saa boroom luy dee dee mi ngay wax naa mën nga koy féetale maa ko yore lu mu doon yàlla daldi wax kiiraay yooye nga xam ne ñoo bari woon làq ba kenn mënu ko woon a seen bari woon na bari ba mat junni junni kiiraay yàlla ne kiiraay yooyee muriku leen ba set wecc ba dee ne fàng xaala wax allahu yàlla taxalaa na lil malaayikati ñel malaaka yi ne xool leen xaasa kii almootu mooy dee fa nadaruhu te ñu xool ko kulluhum képp ci ñoom xala wax allahu yàlla taxalaa kawe na lil mawti ñeel dee ko tir naawal alayhim ci seen kaw wan sur te nga tàllal ajini xataka say laaf waftax te nga xippi xay nay ko sa ñaari bët falamma taara ba naawee xalihim ci ñoom almawtu dee nazara xool na almalaykatu malaaka ya ilayhi jëm ci moom wata xayyaroo te ñu gëlëm wa waqaxoo te ñu daanu maaxo chiyan mbir mu ñu ñu xamal alayhim ci ñoom alfaxaamin junni at daa njëkkoon nett li bi yàlla door bind jëmmi dee ci boppam nam ko làqi malaaka yi nga xam ne kenn gisu ko ci woon ba ko muree nag ndax jox ko Asraayil ne ko yaa yaa yore dee yow laa ko dénk nag yàlla wax malaaka ne leen xool leen nag dee ngi nii bañ ko xoolee ñoom ñëpp nag yàlla wax dee ci boppam ne ko naawal tiim leen tàllal say laaf te xippi say bët naka dee ci boppam naaw tiim malaaka yi malaaka yi xool ko rek ñoom ñëpp dañoo daal di daanu ci xam te yàgg nañ ci xamte la junni ndax rek gis ngañ gis de tax ñu daanu xam di lu yàgge noonu lu mat junni at falamma afaaqoo ba ñu xiqee xaaloo ñu ne yaa rabbana yow sunu boroom maa xalaqta sakkoo xalqan mbindeef enzama mu gën a rëy min haadal xalqi ci mbira mbindeef xaala wax allahu yàlla taxalaa kawe na ne ana man xalaqtuhu sàkk naa ko wa anaati man a'zamu maa gën a màgg minhu ci moom wasa yaduquhu te xasat na ko mos kullu maxluqin mépp mbindeef bi malaaka yi ximmee ci gannaaw xam te lu yàgg loolu dañoo wax yàlla ne ko waaw xanaa deem yi moom sàkkoo lu ko gën a rëy suñu boroom ne ah mi ngi noonu de xam naa man mi ko sàkk de moom maa ko gën a rëy te képp koo xam ne mos nga dund rek boo xam ne faaw nga mos xaal topp wax allahu yàlla subhanahu ne yaa xasra il yow xasra jàpp ko faqad sàllat naaka xabtal nanu la xàll yi ci kawam faqaala wax xasra ilu xasra il ne yaa ilaahi yow sama buur bi ay quwatin ana ci ban kàttan aquduhu laa koy jàppe fa innahu naka moom azamu moo gën a rëy min nii ci man fa antaahu te jox ko allahu yàlla taala kawe na quwata samawaati doolay asamaan yi wal aradina ak suuf yi suma axasahoo topp mu jël nag deega malakul mawti malaakam dee fa sakkanate mu dal fi yadihi ci loxoom bi yàlla ne Asraayil yow kat yow laa féetale dee ay ca waaxul jël ko mu ne ko ah kii de moom xamu nu ma koy jële mu ne ko jox naa la kàttan gu toll ne kàttanuk asamaan suuf yi bu ñu leen boole woon seen dool na muy tollu jox naa la doole ji toll noonu kon nag jëlal dee mën nga koo jël naka ko Asraayil jël nag ah, jël dee téye ko ci loxoom nag dee ne tekk ci loxoom nag ndax yàllaa ko ca may kàttan fa wax almawtu dee ne yaa rab yow sama boroom isan digalal lii ñeel ma xataa unaadiyee ba ma woote maratan aw yoon fa azina te digal la wàññal ko rabbuhu boroomam fanaa daate woote almawtu dee bi a'la sawtihi ci gën jàkkawee kàddoom waxaal te mu wax ne anaaman almawtu maay dee allësi maay ka nga xam ne u farriqu danaa teqale bayna zawji diggante jëkkër wa zawjati ak soxna nga xam ne u farriqu maay teqale baynal diggante yaay ya wal banaati ak doomi jigéen ya ana man almawtu maay dee allazi maay ki nga xam ne mu far farriqu maay teqale baynal abnaay diggante doom yu góor ya wal abaay ak baay ya man almawtu maay dee allazi maay ki nga xam ne u farriqu dana teqale bayna kulli xabibin diggante bépp soppe wa xabibi yi aku soppeem ana man almawtu maay dee allazi maay ki nga xam ne u farriqu dana teqale baynal axi diggante mbokk mu góor wal uxti ak mbokk mu jigéen ana man almawtu maay dee allësi maay ki nga xam ne u xaru maay not am doole min bani israila ci bani israil ana man almawtu maay dee allësi ki nga xam ne oamiru maay dundal alxuboora bàmmeel yi ana man dee mi nga xam ni u xarri bu maay ràppal ak duyoora kër ya wal xusoora dee allësi dee mi nga xam ne atrubukum maa leen di sàkku wala kuntum ak doonte nekkoon ngeen fii borojin ci ay sëŋe mushayadatin yu duñ yëkkati wala yebb xaate du des maxluuqun menn mbindéef illaa yaduuqu ni ndare bu dana ma mos maanaam bi malaakam dee jëlee dee ba téye ko ci loxoom dee ci boppam daa ñaan yàlla ne ko waaw teg maa may ma wax ñu dégg yàlla ne ko may naa la nga wax ñu dégg dee daal di jëptaane kàddoom ca kaw li kaw ne ku ma xamut man maay dee mi nga xam ne maay teqale diggante jëkkër ak jabar man maay dee maay teqale diggante yaay ak doom bu jigéen man maay dee maay teqale diggante doom bu góor ak baayam dañoo gis ne doom bu jigéen day ëpp féeteeg yaayam doom bu góor xëy na di ëpp féeteeg baayam moo tax mu teqali ko ne man dee maay teqali diggante yaay ak doom jigéen ba maay teqali diggante baay ak doom bu góor ba dellu ne man maay dee maay teqali diggante ñaari soppe ñu ne man maay dee maay teqali diggante mbokk mu góor ak mbokk mu jigéen man maay dee lu waay am am doole muy ci banu Israël muy ci ñeneen sama doole xajul ci kenn maay dee maay tax sëg yi moom lu yàgg-yàgg bu gent fu mu toll di am ñu fa sanc waaye nag kër yeeg pale yi moom lu ñu yéemu yéemu xamal ne bala ma bàyyi ñu ràpp mel na kenn mësu faa nekk bokk na ci la dee di wax bu ko yàlla mayee ndigal lu waxal day wax ne man day maa di ki leen yàlla booleel fu ngeen mën di nekk dinaa leen fa fekk bu ñu nekkoon ci ay sëngi yoo xam ne dañ koo dëgërul lool it faaw rek fu waay nekk dinaa la fu fekk mbindeef mu xas mos dund daal na jàpp ne faaw rek mu mos ma man dee fa isa nasala ndem wàcc na almawtu dee xalaa bi ahadin ci buntu kenn xaama mu taxaw bayna yadayhi ci diggante yaari loxoom mooy ci kanamam rek xalaa suurati yi ca meloom wa su ma taqul topp dana wax anaf su bakkan ba naa ko man anta ana ko yow wa ma turiidu ak ana bëgg fa yaqul te mu wax ne ana man almawtu maay dee allazi maay dee mi nga xam ne uxrijuka maa lay génne mina duniyaa ci àdduna wa ajaxal tamay def aw awlaadaka say doom yataamaa ñu di ay jirim wa zawjataka may def sa soxna armalatan muy aji ñàkk jëkkër wa maalaka may def sa alal mawroosan mu luñ doon bay na war a ci diggante saway doon allazina ña nga xam ne laa tuhibuhum xëy na doo leen sopp fii xaali xayaatika ci waxtu sëg dund fa innaka naka yow nag law lam tuqaddim doonte jiituloo woon illaa xayran ndare aw yiw li nafsika ñeel sa bopp la kaana kon mu nekk xayran di gën mbaa di aw yiw la ka ñeel la mu ne nag bu dee ñëwee ci buntu kenn di ko jël si maanaam bu dee ñëwee ci nit fekk jël si ko moo ko tax a jóg dee day def jëmm ju raglu waraglu mel na mu mel taxaw ci kanamam su boobaa tegam kooku miinu ko da koy wax ne ko waaw yow yaay kan ak lu la tax a jóg mu ne ko man day maay dee maa lay génn ci àdduna mi yóbbu la alaxira su ko defee sa doom yi nga amoon sotti ko ay jirim sa soxna itam soppiku ku amatut jëkkër sa alal ñu seddale ko ñi ko war donn donn ko mën naa am sax ña koy donn bëggoo leen woon bëggoo ñu doon la waaye doo ci mën dara bu fekkee nag yaa ngi doon def lu baax jiital aw yiw bala ngaa jëm ci fee nga jëm kon tey ji doo ko réccu ndax dama fekk aw yiw da fa fekk jàmm bu fekkee daal yaa ngi doon def lu baax bañ a fàtte bis bii tey daal kon loolee doo ko réccu lu baax rek nga fay fekk fa isa samiha ndéem dégg na an su bakkan ba daalika loolee xaw xawala mu wëlbati waccaxoo kanamam ilal xaayit jëm ca miir ba wala ca sàkket wa fayraate muy gis almawta déega xaa iman muy aji taxaw bay na yedday diggante yaari loxoom mooy ci kanamam rek fa xawala te mu wëlbateeti waccaxoo kanamam nga ilaa jaanibin jëm ci wàll aaxara geneen fayaraate muy gis almawta dee ba tey xaa iman muy aji taxaw bay na yedday diggante yaari loxoom dee jëm ji dafa raglu bu ko waa ji gisee noonu mu nekk yooyu laay jël si waa ji day finati xool feneen waaye bu xoolaatee feneen tam du tee rek déggam gisoon rek lay gisaat ba tey bu wëlbatikoo xoolaat feneen it ndax bañ koo gis daal fu xool fu ne rek moom dee rekk lay gis fa yaqul tey wax almawtu dee ne ko alam taarif nii ndax xamoo ma anaa man almawtu maay dee allazi maay dee mi nga xam ne xabadtu ngëboon naa ruuxa awlaadika ruuxuk say doom bu dee wa waalidika muy ak sa waajur bu dee nag wa waalidayka ak sa yaari waajur wa anta booba tanzur yaa ngi xool wa isa xasu maa ngi jël ruuxa ka saroo gi lam yan faax ka du la jëriñ al yow ma tey ji ahadun kenn min aqaaribika ci say jegeñaale wa ixwaanika ak say mbokk wa awlaadika ak say doom su ko defee dee waxaat ak ci mu jël si na ko waaw ba tey xamagoo ma moo ne man dey am na say doom yu faatu woon man maa jëloon seen ruu maanaam man nañ yebalan ma jële leen bi moo ne sa ñaari waajur day maa leen jël si woon ba tey xamoo ma te bàyyi jël sa doom yooyu ak sa waajur yooyu kat yaa ngi doon xool waaye mënoo ci woon dara yow itam tey jii mooy jël sa roo gi sa mbokk yi fi taxaw mbaa say jegeñaale ñëpp ci yem ak say doom duñ ci mën dara ba may jël say doom ak say te mënoo ci woon dara ba tey yow su may jël sa roo gi say doom ak say mbokk say jegeñaale duñ ci mën dara anaaman man mawtu maay dee allësi maay dee mi nga xam ne afnaytu jeexal naa alqurona maasiya almaadiyata yi aj wey xarnun ci ab xarnu baada xarnun ci gannaaw xarnu ak sara ñu gënal nu bari min ko ci yow maalan ci alal wa aw laadan ak ci ay doom wa quwatan ak ci doole su ko defee mu ne ko ay téeméer téeméeri at ak ay maasi maas ci nit ñi jaar nañ fi yoo xam ne man mi maa leen fi jëlee te ñoom sax ñoo la gënoon a yàggu dund ëppale la alal ak i doom ak doole waaye ñoom ñëpp laa fi jële kon na yow del séentu rek ne ñëw naa te faaw mu yóbbu la su ma topp dana wax la wàññeel ko malakul mawti malaakam dee ne ko kay fara ayt nag nga gisee adduna adduna fa yaqul tamit wax la wàññeel ko ne ko ra tuhaa gis naa àdduna makkaaratun mu di ab fexekat wa gaddaaratun te ab waraakon su ma yàqul topp dana wax allahu yàlla li dunyaa ñel àdduna ne ko kallimiihi waxal ak moom mooy tontu ko fa taqul tey wax addunyaa àdduna ne ko yaa xaas yi yow aji mooy ji ama tastax yi ndax doo man na it ama tastax yii ndax doo rus ante yow xiina adnabta ci waxtu nga bàkkaaroo walla mu tam tania te daawoo fegu minal maxaas yi ci moy yi innaka naka yow day talabtan yi sàkk woon nga ma walam tu fariq te daawoo tàqale xalaalan aji lew min xaraamin ci aji araam in kunta dem nekkoon nga nag te zunnu di jorot ne annaka naka yow laa taxaw ju doo génn minal duniyaa ci àdduna fa xëy xaata kon day soree na mooy loolu mënta nekk fa anaaman bari atun aji set laa min ko ci yow wa min xamalik ak sa jëf wataraata da nga gis maalaka sa alal xad waqaxa muy tàbbi fiye di xayrika ci loxol kull yow mu ne malaakam deemi day laaj waa ji nga xam ne moom la jël si ne ko waaw adduna ji nga nekkoon nag ba fi bëgg a bàyyi ko noo ko gisee waa ji day tontu ne adduna daal ndekee am warkat bu bon a bon la su ko defee yàlla wax adduna ne ko tontu ko tontu lim la wax adduna mooy tontu waaja ndegam daa nekkoon ku sàggan a sàggan daawul moytu xaa lu ko neex rek def adduna wax kooku ne ko yow day ab moykat nga boo xam ne xëy na ngaa jàppoon ne bis bi tey du ñëw ndax danga daan def loola neex ci xeeti bàkkaar yi daawoo ca moytu dara danga nga daawut alal ci sama biir man àdduna ci daawoo ca seet lu lew ak lu lewut bu fekkee da ngaa jàppoon lu yàgg-yàgg boo génn fii ci man nag dem ci kër gële nag kon xamal ne sa njor nax na la man day doonuma ci yow dara li nga doon def it du man maa doon xiirtal sama yoon nekku ci woon te it alal ji doon dajale daawoo ci seet lu dagan ak lu daganoon nag danga nga gis tey ji kenn fab ko te doo ci moom dara fa yaqul tey wax almaalu alal ja ne ko yaa xaasi yow aji moy ji kasabta fàgg woon nga ma bi xëyri xàqin ci lu dul dëgg walam tata saddaq te saraxe woon biyee ci man xalal fuqaraa yi ci way ñàkk ñi wal masaakiin ak miskiin yi al yow ma tey jii xad waqaxtu tàbbi naa anaaman fi yadi xëyrika ci loxol ku dul yow fa daalika loolee xawluhu mu wax yàlla bi taala yow ma laa yanfahu bis ba nga xam du jariñ maalul alal wala banoonul jaagiwoon ay yu góor illaa man rek nga xam ne ataa dikkal na allah yàlla bi qalbin ci ab xol salimin bi aji mucc te waqul tey wax almaytu néew ba maanaam kookee di waaj a faatu ne rabbi yow sama boroom irjihooni yàlla ngeen ma delloo la xàlliya ndax lee man ahmalu dinaa mën a jëf saalihan jëf ju baax fii maa ci li nga xam ne taraktu bàyyi naa ko fa yaqul tey wax allahu yàlla taxalaa kawe na ne kallaa ulyu déedéet indaa naka loolu kalimat ab baat la huwa boo xam ne moom qaa'iluha aji wax la ko rek waaye du ko amal njëriñ kallaa ulyu isaa jaa andim dikk na ajaluhum seen app la laa yastaxiroona ñu yeex saaxatan wenn waxtu wala yastaqdimoona te duñu jiitu ba tey wenn waxtu bu ko defee nag alal ji ci boppam mooy waxanteeg ki bëgg génn àdduna te wutiwu ko woon ci anam gu lew seetu ci woon dara daaw ko def ci yoon yàlla ne ko yow day ba muy wut man alal ji seetoo ci woon dara dawoo sarax itam fuqaraaw yeeg masaakiin yi tey nag man ku jëm àllaaxira duma ma joteeg moom dara dama lay bàyyi dem ci ñi ñi dund waaye man alal ku dee jotewuma ak moom dara tey nag dinaa dem ci loxo keneen doo ci man dara mu ne loolu bokk na ci li suñu di wax naa bis ba nga xam ne alal mbaa doom di jariñ mukk xanaa rek ku wuy ji boromam te ànd ak xol bu sell kooku rek la xol bu sell ba muy pas-pas baak jëf jo di jëriñ su ko defee nag moom mi nga xam ne moom la dee di jël si day daal di wax ne ay waay ji dañ mu muñal lum néew néew rek ba dundaat aslëf ndax mën a def lu baax ci alal ji ak li ma fi bàyyi su borom ne déedéet loolu baat la bu ñu wax rek noonu waaye kenn du ko may kenn ko ne sa ab moom ba agsi rek agsi na maanaam kenn ku ne waxtu nga am rek kenn ku ne appel la appel moom du ëpp dara du yées dara fu muy axu soot dana jël ruuxahu ruuxam nga fa in ndem nekkoon na muminan di aji gëm fa xala saxaadati kon nekk na ci texe wa nekkoon na munaafiqan di ab naafiq fa xala shaqaawati kon na ci texee di inna kitaabal abraari naka téeréb gaa yu baax ya la fi xilli yi nekk na ci xilli yi na wa fil ayit nekk na ci laaya ba mu ne kallaa uyu inna kitaabal fujjaari naka téeréb saay-saay sa la fi sijjiin nekk na ci sijjiin intaha mat na min shajaratil yaqiini bàyyikoo ci téere bi tudd shajaratul yaqiin lil ashari yi ñeel al imaam al ashari radiyallahu anhu kii doog génn àdduna bu waxantee nii ak àdduna àdduna tontu ko àllamit noonu wëlbatiku waxanteeg moom yi ñu waxante noonu dara desul lu may malaaka mi daldi jël aw ruuxam su fekkee ku gëmoon la te daa rafetal kon mu daldi bokk ci ñiy taxe fekkee dafa nekkoon ab naafiq mbaa daa mooy te yàlla jégalu ko mu daal dem ci texee di ku baax ak ku bon kenn ku ci ne am na téere bu ñu bind ay jëfam am na itam fi ñu koy yóbbu teg ko fa dara du réer dara du rëcc gaa yu baax yi seen téere jëf ñu ngi ko yóbbu ca ay lii saay saay si seen téere jëf ña ko yóbbu fa si jiin mën nga koo xooli ci téere bi tudd shajaratul yaqin boo xam ne al imaam ashari moo ko taalif wa fiihi nekk na ca aydan fii dikri malakil ci tudd malaakam deema alayhi salaam wa kayfa yaaxusu ak naka lay jàppe al arwaax ruya wa dhukira tuddeef na fi kitaabil mulooki ci téerib al mulook xan muqaatil ibni suleymaan rahimahullahu taala anna malakal mawti naka malaakam dee kaana nekk na lëxoo di ko ñeel sarirun ab lal fi samaa yi ci asamaan si assaabihat si juróom-ñaareel wa def na wax fi samaa yi ci asamaan sa arraabihati mi aji ñeenteel xalaqahoo sàkk na ko allahu yàlla taxalaa kawe na min nuuriñ ci ak leer wala xoote ñeel na ko sabaxoona juróom-ñaar fukk sabaxoona alfa xaaimatin ci junni tànk wala te ñeel na ko arbaxatu alaafi janaahin ñeenti junni laaf moom loo an mbir muy lu ñu feesal jamiixu jasadihi mboolem yaramam bin xuyooni ci ay bët war alsinati ak i nu xoolaat nag baatub wal alsinati joojule daa mel ni daal biñ ko xasee tudd noonu kenn laalaatu ko benn yoon mu mel ni dafa doonoon bil xoyooni wal ay dii ak ay loxo xëy na buñ gisaatee benn yax nemmi ko ko ba xam wala sa ahadun déet kenn min xalqillaay ci mbindeefi yàlla yi taxalaa kawe na minal aadami yii na ci doomi aadama yi wa tuuri ak janaaw yi wa kulli di ruuxin ak képp ki boroomu roo illaa walahoo dara nga xam ne ñeel na ko fii jasadihi ci yaramu malakul mawti wajhun kanam wa aynun ak bët wa yadun ak loxo bi xadadihim ci kem seenu lim payaxus hmm. sa muy jàppe bi tilka ay ci yooyee loxo al arwaaxa ruuya wa yanzur tamuy xool bil wajhi ci kanam nga ëllësi ga nga xam ne yu haasihi dana tolloog moom wali saalik ngir loolu yàq bir dana ngëpp arwaaxal maxluqiina ruuyi mbindeef yi fi kulli makaanin ci bépp béréb fa maata ndem faatu na ibnu aadama doomi aadama zahabat dem xaynuhoo bëtam ba min jasadi ci yaramu malakul mawti wa yuqaal def na wax ne inna lahoo naka ñeel na ko arbaxata aw juhin yeenti kanam wajhun kanam ala ra'sihi gu nekk ci boppam wa wajhun ak kanam ala zahrihi gu nekk ci gannaawam wa wajhun ak kanam amaamahu gu nekk ci njëxam wa wajhun ak kanam taxta xadamay gu nekk ci roon ñaari ndëggoom fay axu samuy jàpp arwaaxal ambiyaa yi ruu yi yonante yi wal malaayikati ak malaayika yi alwaj ci kanam nga ëllësi gi nga xam ne xalaa rasihi nekk na ci boppam wa arwaaxal muminina mu jël ruu yooyu gëm ñi amaamahoo ci kanamam wa arwaaxal kaafirina mu jël ruwe way wedd yi féete gannaawam wa arwaaxal jinni muy jël ruwe jinne yi min taxati xadama yi ci roon ñaari ndëggoom wa ihdaa rijlayhi benn ñaari tànkam xalaa jisri jahannama bi ngi nekk ci pomub jahannam wal uxraa tànk ba ca des xalaa sarifi jannati ma nga lal bu ko yàlla sàkkal defal ko ko ci juróom-ñaareelu asamaan am ñu ne ci ñeenteelu asamaan dafa mel ne lal ba yàllaa ngi ko sàkkee ci leer te am juróom-ñaar fukki junni tànk yu ko téye moom lal boobu dafa mel ne nag moom malaakam dee mi ci boppam am na ñeent junni laaf te yaramam bi daa fees dell ak i bët ak i làmmiñ ndax li mbindee fi yàlla yi toll lépp lu am ruu rek am nga ca malaakam deema kanam ak bët ak loxo nga xam ne kon ni borom ruu yi bare rek li ñu bari bari kenn ku ci ne am nga ca jëmmi malaakam deema sa kanam ak bopp ak sa bëtu bopp ak sa loxol bopp